l'homme de Pikine doomu nday Wally Seck dem nañ Gambie ba ñëw xaali toj na Gambie ah ngeen dem ngeen dem Gambie ba ñëw toj Gambie ngeen ñibbi si coow li bari non non euh, miin nañ ko suñu dëkk. te waale dafa fonk gàmbi. dafa fonk gàmbi de. la ilaha illallah waale dafa fonk gàmbi. parce que nag euh, gambien yi ñoo bëgg waale. waale delloo leen ko xanaa xamoon bu tabax si jotee nii waale xar yi muy dàq di ko yóbbu gàmbi. nit ñi bàyyiwuñu ci xel. koor bu jotee suukaru koor yeeg ceeb bi waale. day dem gàllankoor barke Seydina billaahi àdduna may déglu waa Gambie may seetaan heure bu tabax si jotee day jël ñaari camion def ko xar ba mu fees moom la ñuy yóbbu Gambie bu tabax bu koor jotee ceeb ak diwlin ak suukar waale da koy dàq mu dem Gambie. ba pare ci confinement bi nii dafa jékki-jékki taal otoom moom. dafa jékki-jékki taal oto dem Gàmbi ci confinement bi feebar bi amee moo xam ne àdduna bi métti na. mu dem Gàmbi dugg ci hôpital yi ci daara yi. def jënd ordonnance yi dimbali nit ñi taalaat otoom ñëw. waali heure bu demee Gàmbi lépp lu fay jëlee da koy bàyyiwaat Gàmbi barke Cheikh Ahmadou Bamba laa la génneel ak yàlla mi ma tiim. billaahi wallaahi ba bi ñuy ñibbisi ñu ngi taxaw ci euh, station Kaolack bi barke alxuraanu karim lu mu yor du Gambie la koy wàcc ak bala moo dugg fii Sénégal waale mul Gambie pour di liggéey pour di fa jëlee xaalis noonu déedéet moom day dem liggéey Gambie ba pare barke Seydina Mouhamad bàyyiwaat ko ci dëkk bi. li ma la wax nii wóor na Seydina Mouhamad yàllaa ma tiim ku dégg sa bàmmeel ñun ñii di ànd ak moom jaaxal parce que artiste bu jugee Sénégal dem joué ji ci concert yu toll noonu stade bi fees dell li nga fay am yëpp nga jël ko di ko joxaat néew di doole yi di dimbali nit ñi di ko fa bàyyi barke alxuraanu karim da ko fay tas ba mu jeex tàkk génn taal otoom dem ñibbi Sénégal xolo xale bi mu xolo ndaw si di barki dem yéen a ko gis. 15 millions 500. xam nga nit tey booy wax ci moom dara nga gis ay preuve jaratul leeral ndax yeen ñii du ay wax rek ngeen di wër 15 millions 500 yi gis ngeen ko moo tax yéen yéen a gis loolu. mais man toog naa maa waali man këram ci saalam ñu toog ne di seetaan télé. dinaa ko wax nag de. waali baal ma tey waaye te tey moom bi moom dinaa ko leeral am benn xale bu ñu wonee ci télé duma ma tudd turu télé bi mu feebar cancer ñu mu war a faju ji Europe somu moonin bi cinq millions la mhm. waali naqare ñun bi ñu toogee ci saal bi booba ñu ngi añ maafe je me rappelle très bien du ma ko fàtte naqare jël na numéro bi ci télé bi jël na numéro bi woo woo ki muy woo nu jël xale bi yóbbu ko Paris faj ko te bi ñu ko yóbbu Paris mu def yëpp génn visa bi jënd billet yi millions yi moo ko ci teg waaye déggal lii barke allah ji fallu Mbàkke bi ngi may dégg ndax moom xamoon na ne lii dinaa ko nettali maa ngi moom ci saalam ñu toog di añ ñi maa fe doon añee ñu am benn xale bu ñu wane xale bu ndaw la dafa cancer mu war a dem Paris faju ji euh, recette affaire bi mu war a yóbbu xaalis bi ay quinze euh, cinq millions mais naka de jël na numéro bi te ñun ñu toog ak moom xamuñu jël na numéro bi moom waali jël na numéro bi woo ñu jël ko yóbbu ko pare faj ko jël 5 millions bi ñuy dem mu jox leen ko kookoy waali mooy fekk fu dara néewul mu def fa dara. mais ñu gis ngeen ñibbi si Gambie coow li bari. ban coow. coow contrat bi. ban coow contrat coow ñi mu a jël. ban coow ñi mu waroon a jël. coow ñu ko porte ban coow ñu ko porte plainte yéen loolu dégg ngeen waale li mu ci wax moom. dégg nañ ko mu damanti. waaw non dégg ngeen wax. waaw ngeen ko booy kuy jël ay kuy jël ay millions yu bari di ko jox ay doomu aadama dafa naa ne loolu ñu wax noonu kooku yëgul loolu. nañ waxante dëgg nag. kon ñoom dañ ci jublu non non non man xaw ma ñoom lañ ci jublu ñoom ñoom ñoom la concerné. mais gëstul leen. nit boo amee sa doomu réew. mu dëkk ci sa réew. di fa def teraanga di leen dimbali jéem leen a gëstu loolu te bañ di gëstu leneen. li muy def ñi ngi koy wane ñi ngi koy wax. non da leen ko fësal parce que man dafa am lu ma ci xam xam nga tey. Euh, du ma bëgg a sori sax ci moom parce que yëg-yëg la. waaw yëg-yëg la euh, waali du nit. barke ma du Bamba xam nga lu tax man la du nit waxuma la li ma koy tëggal a tax de booy dama lay wax rek ngir jëmi Seydina Muhammad rek ñu waxtaan mais nit doomu aadama koo xam ne da ngay nekk ak ay nit bëggoo ñu torox. bëggoo ñu torox. li ngay bëgg a am nga leen koy yéene. li ngay bëgg am ku ci nekk yaa ngi koy woo ci ruq dinaan ko jéem a defar sa avenir ëllëg booy nan leen waxante dëgg man mii di wax ak yow seetaan ngeen des bët ki Demba Ndiaye am naa lu ma nëbbu. loo xam ne mënu ma koo wax parce que moo ma ko ñaan te li mu séq ak man ci teraanga la. dëgg la nañ waxante dëgg yéen yàgg ngeen ci affaire yi tamit xam ngeen aar duñ nañ waxante dëgg rek. kan benn musicien nga gis bu di leen jàppale di jënd ay kër di leen jox di jënd ay oto di leen jox yéen nga gis quoi ay fen xaju fi bu fekkantee gisu ko yéen wax leen carrément gisuñu loolu gis ngeen ñu ñun ñëpp ku ci nekk yaa ngi dawal 4 x bu seer ku ci nekk yàlla mi ngi lay dimbali moom fexe ba yaa ngi am kër booy dugal sang njaboot di fa suturlu ak sang njaboot yéen ngi koy gis maa ngi sama kër parce que yàgg nañu nañ waxante dëgg xam nga ci dara bu fekkante xam nga nit dara te amul yéen ñi mu koy wax da ngeen xam ne kat kii li muy wax ni amul ñoo dëkk ñoo dëkk man ak yow yow xam nga ni xaali mii ak xaali ma woon yow xam nga ni bokkul nan waxante dëgg rek bu yàlla bëggee dëgg mais tey booy jàppale nit tey nga nekk ay nit yàlla boole leen ngeen di liggéey bëggoo ñu torox bëggoo ñu xoolal ñun mbës mi yëgunu ko yàlla moo ñu tiim confinement bu njëkk bi dafa dajeeg koor dajeeg tabaxi bi ñu mujjee joué ñu ngi joué Pikine fii ci batoraa bi ba ca suba ga mu tombeek samedi ak dimanche joué wuñu mu bàyyi ba lundi mardi mercredi ku nekk mu jox la ñaari saaku ceeb diwlin café suukar cent cinquante mille francs pour nga départ sa koor ñu wóor dix ñu wóor euh, ñaar fukki fan ak juróom korite des juróomi fan ku ci nekk mu jox la euh, fukki ginaar ak juróom ak ñaar fukki junni dépense barke alxuraanu karim musicien yaa ngi may déglu gars yaa ngi may déglu ba nii may wax ak yow ba avant ñuy dem gàmbi fu mu toogee sàkk weer bu ne weer bi dee na la première ku ci nekk bu la woowee ñu ne dama jël sa enveloppe boo ko jëlee. man waxante dëgg te am na fi yéen yéen a ngi ci aar bi man gis naa fi ay musiciens yoo xam ne macha allah dañu am sonn ah. mais ñun yëguñu ko yàlla moo ñu tiim kon bu ko neexoon tey jii mën na ko defee neneen mais ngay ànd ak nit di dimbali ay doomu aadama di leen teral di leen jàppale ba pare dimbali bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp li ci ëpp solo mooy defaral leen seen avenir. surtout xam nga ni kooku bëggul ëllëg nga torox na waxante dëgg ku ci am sa benn 1000 francs ngi lay woo naan eh, suba jëndal benn saako ciment. ngay nakk nakal moom mu génne 4000 teg ca ni la demal jënd ñaari ton da ngay am 1000 francs mun la jëndal benn saako ciment ngay nakk nakal yaw mu génn waali génne 4000 teg ca ni la eh jëndal tonne na tàmbali acca na jug man bi may tabax sama kër gi naa ko wax rek nga baal ma rek waali naa bii rek laay wax waaye dootuma ko wax nga baal ma daa bàyyi ba ay ban heure trois heures di matin nga baal ma rek mënu ma ko moom dina ma baal lu baax la faaw ñu wax waaw na ma baal rek mu bàyyi ba ay trois heures du matin woo ma téléphone ni ma foo nekk xaalis man ko maa ngi ni sama kër mu ñëw jël benn takk def ko ci mbuus moo yëkkati kër gi ah na ma baar rek ma wax bii rek yi ci des dootuma ko waxaat yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla euh, may nu wér lu baax kenn du ko nëbbu moom sax daf may tere billaay wal kitaabi mais moom xam na ma parce que man mënu ma nëbbu yenn yi bii ma wax nii sax tey xam naa ne bu ko déggee sax waaye baal ma àq baal ma waaw parce que mënu ma koo nëbb bàyyi ba trois heures du matin mu ñëw sama biir kër gaare ni ma wàccal ma wàcc mu jël benn takk def ko ci mbuus bu bula ni ma demal nga yeggale demal def li nga war a def nga yóbbu sax njaboot loolu na ma baal ma rek. bi bi moom dootuma xaar sax yeneen yi jéggal ma. ayca mbokk yi ah, ci inigration bi ba tey. añ bi de tax maxa dem def li muy def ba noppi soirée bi madul yaa ngi may dégg maxa jël jël xaalis bi dem ci moom ni ko lii ak lii mënu ko xam nga lan laa bëgg ci lii nga lii nga yor nii demal nga dem ut loo ci liggéey. te bul tukki yow nekkoo yow nekkoo koy dem bitim réew di fa toog demal nga dem lii fond la demal nga wuti ci départ boo waxee ci waale ak maxa damay damay mel ni ku nuy mat parce que moom non moom moom ay affaire am moom moom du nit bëggul ku torox bëggul ku xiif bëggul ko jaaxle bu sañoon moom kese ci doomu aadama yi moom rek mooy génn di dimbali doomu aadama yi boo ne loolu bëgguma ci woon a tudd ndax dafa am lu luñ ci waxtaane man moom maak maxa ma xam ci lu ma leer dañu ko demal kaay ma may la soirée mayul maxa soirée départ la ko doon may koo may soirée kay bu xaalis ba génne da nga ne ko kaay ñu calculer kaay ma jël sama wàll maxaa takk xaalis ba mënu ko lii ñaata la maxa ni ko temps la mun ko demal wuti ci départ barke Cheikh Ahmadou Bamba ay million pour ngeen xam loolu ni ko demal wuti ci départ soxlawuma xaalis bi mooy fekk fu dara néewul mu def fa dara. mooy fekk ku tekkiwul dara mu def ko dara. mooy ànd ak ku ñu xeeb mu yëkkati ko ba teg ko ca kaw ba ñëpp ba ñëpp naw ko bu ko neexoon ba soirée ba jeexee bu ma xa kër këram mun ko kaa ñu décompté waa xam xaalis ak a xam décompté. Ah? li muy wax dëgg la wax sa mbaaxu wàññiwul dara ci sa mbaax. ñun suñu carrière ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax Wally joué ci lu bari ragal féete dafay xañee wërsëg Wally suma frère la suma xarit la suma doomu nday la parce que man ak moom ba ñuy ànd ni mu mel melu ko moom it ba muy ànd ak ñun ni ñu mel meluñu ko ñun mënuñu di jaay dara Wally ba mu saf ko waale mënuñu jaay dara ba mu saf ko ndax dañuy ànd te yàlla tax te nongoloo day wax benn wax mu ni ànd te yàlla tax boobu ànd du jeex kon ñun ak waale suñu ànd du mës a jeex parce que tamit waale dañoo yàgg ak moom mu doon nit koo xamante ne si nit ku baax la nit ku bëgg nitam nit koo xamante ne si nitam du ko boole ak kenn mooy Waly Ballago Seck nit ku ma respecté nit ku ma jox cër nit ku ma taxawu may takk jabar dafa jël nag indi ko sama buntu kër jabar mhm. am contrat Gàmbi bàyyi ko mhm. ñu naan déetawaay mu waroon dem Tiwaawan mhm. yóbbu fa ay nag bàyyi loolu ñëw fekk ma fi nga xamante ne si moo nekkoon sama xew kon man au moins lu mu mën a fayewaale loolu di ko ñaanal te bu amee bisit ñu taxaw ci comme ni mu ñuy taxawoo parce que ñun ay xale la ñu ndaw bi waal di ànd ak ñun lu ne dégg na ko parce que dafa bàyyi goxam ñëw fekk ñu fi ñu nekk di ànd ak ñun grand sàmmageen xam na li muy wax baax ñun tamit ñu doon ay jeunes yoo xamante ne si nii dañ koo gëmoon te yàlla tax te damay wax benn wax bu am importance waaye ñu doon ànd ak moom te yàlla tax yëpp suñu borom def na leen dara waaw waaw ñi doon ànd moom te yàlla tax yëpp suñu borom def na leen ñu doon dara te nit ñi nit ñi ñu ngi juum ci moom wàlliwu la waale ku boon xolam bi hmm. wallaahi azim doo ci fekk ay way déedéet man damaa xam waale parce que damaa ànd ak moom ay at xam lu mu capable ak lu mu capable comprendre nga moom man xam naa ne dina lakk ay nit ñu bari parce que image bi muy présenté ci kaw nit ñi ak li doon ci moom c'est diamétralement opposé ah, man xam naa ko fii Pikine ku fi xam waale wala nga koy nga koy bàyyi xel nit ñu def moo tax mm-hmm. ñun ba ñuy ànd ak Wally suñuy grand frère lañ fekk léegi ñoo ñoo ñëw di ànd ak moom kon peut-être nim ñu def moo tax loolu mën a am ñu ngi ci jaare di ko gërëm di ko wax ni ko taxaw nañu quoi comprendre nga Wally ñu gis ko ñu bañ ko gis sàmm kenn ñun munuñu am beneen copain bu dul Wally parce que moom lañ xam quoi moom lañ màggoon ndool moom lañ yaroon ndool man su ma Youssou Ndour doon way du ma ko sentir pour dire vrai parce que gëw ma ko quoi comprendre nga su ma Michael Jackson doon waaye du ma ko sentir parce que gëw ko mais su ma waali ne eh maxa sama xol day sedd. parce que moom laa màggoon loolu moom laa xam. te yoon bi mu jël nga xamante ni si moom mooy musique man leer na ma leeral yàlla bi kenn du ko ci tere am li bëgg parce que xolom moom moo tax message spécial pour waale jërëjëf waaw